Mbaye Ndiaye yëkkati na ay kàddu wax la nga xamante ni bi moo tax mu daa dee jël micro ba def fañing fañing fañ fañ fañ ba awa caaca dana ko leeral moom Mbaye Ndiaye Moustapha Cissé Lo nee na waa Touba dootu ñu yóbbu kenn Màkka lan moo tax moom Moustapha Cissé Lo mu wax lu ni mel ak lan moo tax gisuñu ko ca la nga xam ne moom la ñuy wax ndajeem pont de l'émergence loolu yëpp Cissé Lo dana ca indi ay leeral ki nga xam ne moom la ñuy wax Yaxya Diop Yékini moom ci jëmmi boppam kat ah daanu na day bàyyi lamb wala du bàyyi lamb moo ne woon ñaari combat yu saf la bëgg ndax am na benn ginnaaw day dolleem du dolli ak la lay def loolu lépp dana ci indi ay leer procès Wally Ballago Seck mbirum Bercy moom ak kan moom ak ñi nga xamante ni bii kat ñoo ŋànk lépp lu jëmoon ca wàllu Bercy ba procès ba amal nañ ko na mu demee léegi-léegi lay doon revue de presse yaa jàmme suka tuta leer Soukha Mbaye. waaw def naa kon fu ñu jëm mooy. Euh, ci li nga xam ne rek moom moo di message à la nation. Euh, di comme ni ñu koy waxee rek chaque jour di lundi au jeudi dañu daal di a ak ki nga xam ne rek moom moo di Sadio Meng euh, Meng Mbor góorlu ñu daan ci li nga xam ne rek moom moo di déclaration bi mu daat koy faram-fàcce ànd ceeg mbokku téléspectateurs yi bu fekkee Ramatoulaye saal madame Diop pare nga rek ñoo di ànd ak saa ci déclaration. mes chers nee na quatre-vingt-dix pour cent enseignants yi xamuñu dara Bouba Ndour ndax moom xam na dara bay war a wax ku xam dara ak ku xamul dara dafa fàtte ni boo toogee ci ab tele di wax ba annoncé ay chiffres daal di wax ni quatre vingt pour cent wu yi dafa war a am foo ko teg joxe ay statistiques yoo xam ni dana mën a wéral li nga wax waaye paa nga teg ko ci sa bànneexu bakkan bac bi ak BFEM bi résultat yi catastrophique la lan mooy problème bi loolu la waroon a njëkk lijjanti te xam ni problème bi du enseignant yi mais c'est l'état du Sénégal mooy problème mais ñàkk xam-xamam moo tax mu jëmale ko ci enseignant yi enseignant yi état bi dafa waxoon ak ñoom lu wër signé ko xaatim ko muy ay accord yoo xamante ni bii xaatim nañ ko joxuñu leen ko ñu grève résultat yi catastrophique Bouba Ndour bëgg lu yomb ñàkk xam-xam féetali ko enseignant yi féetaliwu ko ña nga xam ni ñoom ñoo diggee woon lu ñu deful loolu mooy wane ni ku ñàkk xam-xam la te moom Bouba Ndour mii liy wane ñàkk xam-xamam muy mësta liggéeyal ku dul magam kon bu magam tekkiwutoon tey du taxaw sax bay yëkkati kàddu enseignants yi nag maa ngi leen di xamal na leen jëmm yu mel nii bu ñu waxee bu leen leen tontu parce que li tax ñuy wax du lenn lenn lenn ludul bëgg ku leen di tudd ñu am buzz am buzz nag bu taxee ngay def li lu doy waar te Bouba Ndour dafa créer émission boo xam ni yàq xale yi mën a jàng sax ko tax a jóg ndax dañuy seet xale yi nga xam ni ñoo dàq jàng enseignants yi liggéey ci ñoom sonn ci mu ne leen déedéet kaay leen jàng fekk ak way te ku ne xam na ni lu way gàtt-gàtt xel xam ni am peccakum way yor réew sénégalais sénégalaise mes cher compatriotes jërë ngeen jëf way neex na mais dégg-dégg moo ci am solo ci sargal képp ki nga xam ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel ci loolu na dañ koy dalal ko nga xam ne rek moom moo di mbay Ndiaye ci suñu premier numéro de la semaine ci seen émission bu mag bi lee mu di Nepad musical Mbaye nuyu naa la Ndiaye Hey, eh, je suis vraiment content d'être ici sur ce plateau di nuyu encore une fois le président Macky Sall mm. l'homme de chantiers gaynde gi di ko nuyu kor mareem mi nga xam ni wax dëgg fa yàlla eh, il a inauguré beaucoup de chantiers si li nga xam ni mooy weekend bi donc munuma def lu dul ma sant ko geram ko encore une fois di gërëm ñëpp ñoo xam ni ñi ngi seetaan télévision bi di am mbégte ak kontaante di la déglu nag pour nga laaj ma euh, pour ma pour ma tontu daal. waaw ba tax na loolu lépp nga wax. waaw léegi Mbaye Ndiaye yow yaay ba Ngom numéro 2. Ah, yaay eh? yaay Farba Ngom. ah numéro 2 muy Farba. xamoo Farba ah, gëmalu ma. man lu ba def xamoo ko. Hmm. yow Farba bi tax Farba fi mu waroon a taxaw yëpp yow yaa fay taxaw. Ah. yow looy looy bàyyi ba Macky Sall di di wax di wax discours am nga ni nga jël micro bi daan ko fañ fañ fañ fañ fa wàccaa caa yow loolu koo def. Eh. Sénégal nag comprendre luñ diggante Macky ak Mbaye Ndiaye. waaye de la mere loolu xamul kon yéen xamagu leen diggante Macky Sall ak Mbaye Ndiaye. xam nga diggante Macky Sall ak la. la expliqué eh, Sénégal Ndiaye nag de. yow Youssou Ndour ak Mbaye Gueye Faye. ah maay Mbaye Gueye Faye. maay Mbaye bu Macky Sall Macky Sall ay Youssou maay Mbaye Gueye bu waxee ba ca biir a biir maa war a xoromal. Ah. loolu moo tax ma jël micro bi ne ko roogo dem na xuj. afañin fañin fañ fañ fañ fa wàccaaca loolu mooy xorom si. kon naka doon xoromal Macky li mu doon wax Macky buy discours. waaw dafay soxla kuy saf-safalal discours bi. Ah. saf-safal bi maa ko yore. yee ah. kon yéen loolu. Sénégal jaay la communication de xamu leen ko. diyo <laughs> bi nga xam ni moo yëngal jamono loolu di diyo. sama digganteeg Macky Sall diyo la. Eh waay Samba Macky bu doon génne kaset fu mu wee fii ma fu mu tulli ma mbalax fa ca des. loolu mooy lii dëgg bu doon mbalax la boo ko mandargaa ci mbalax. Mm. Macky Sall mooy mbalax may tulli. Macky mbalax may tulli. moo tax man la géwél moo tax man la yaay géwél. loolu tax ma ne ko fa ñu fa ñu Farba Ngom dafa mun a dugg. ah ah ba ci foofu il faut nga am dëgg-dëgg. parce que Macky Sall mi ngi wax ma koy déglu di ko déglu di ko déglu bi mu waxee ba ki ma xëj micro bi. daal dina ko roogoo roog roogoo dem ñaxañ afa giñ fañiñ fañ fañ fañ awa caaca. yow waay samba fañiñ fañiñ fañ fañ fañ. awa ah, caaca foofu de dafa fàtte woon discours ba la mu war a wax. Ah. moo tax après Macky dafa ñëwaat dabatuwaat discours ba. Ah. <laughs> may fay ngay fay instant boobu kon dafa fàtte woon nga. dafa inspiré mana yow yaa ngi mbay man mii mbay Samba kon mbay yaa ngi Youssou Ndour may Macky. la <laughs> dong nga leen tàggale. muy nan kollu ba. waaye benn la. <laughs> comme kollu Macky moo am kollu. yaa ci macha allah. ah yaa ko wax de. waaw dëgg la na yaa ko wax. ma jël nag yaa ngi tooñ. ñu ciy nuyu képp ki nga xam ne day ñu bàyyi xel kon daal koy wax 88 628 99 99 114 allo. allo. asalaamaaleykum. ma maaleykum salaam. maa ngi nuyu Mbaye Ndiaye bu baax. naa la. waa Mbaye Ndiaye. yokk xamante ni bii moom laa doon laaj laaj képp la. muy ba yow nga ni Macky Sall jëlee kii bi est-ce que xam nga dalaa ndax xam nga loolu mais Macky daf la mere lool loolu loo ciy doon. waaye Sénégal nag xamul. <laughs> Macky ni mu jëlee micro bi loolu action la. loolu ban action la loolu mere de. Macky def ko jël muuñ piis ma. ñu la lan xoolaat ma def. wan ma ne ma fi nga dugg foofu la mbay te woon naa ko. mbay gay fay mbay njaay sant donga ñu taggale. muy lan mbay mbay. mbay sag yi sag yi sag yi sag yi sag yi sag yi dafa nekk ci sag yi. waaw bu ko doon xool dama ki doon discours yëpp dafa nekk sag yi sag yi sag yi sag yi sag foofu la ko kaloon maa ñëw nag ne ko giñ mbaq gi giñ mbaq giñ mbaq gi mooy fa giñ fa ñun <laughs> bi ma ko defee giñ mbaq gi giñ mbaq. jaay foofu la Macky Sall di bondee. daa di retourné graté daa di ne gayndee laa foofu la waxee ne gaynde la dëgg kon ah, ah seetlu woo leen discours bi Macky foofu la waxee gaynde la ne opposition bi bu leen may bu leen ma yëngal. gaynde buy nelaw kenn du ko yee. Euh, waaw yaa la Macky Sall dugalee moo boobu. foofu da nga koo da nga koo da nga koo indiwaat. waaye Macky dafa nekk ci taas taas taas. taas taas taas bi maa ko indi. moo doon taas taas taas bu defoon discours bi yëpp di taas taas du neex. daaw nga boole ci mbaq bi taas mbaq taas mbaq gigin mbaq taas mbaq gigin mbaq mbaq. yéen yow daal Mbaye Ndiaye léegi yàq nga. gën a moo tax ma ne le président de l' émergence. <laughs> yow de léegi damaa. Macky Sall mi nga xam ni moo defar pont. de l'émergence Farba Ngom numéro 2. Macky Sall defar pont de defar autoroute bi nga xam ni moo war a jaar ci géej gi romb Cambérène. ah géej gan. neef yëpp. géej gan autoroute bi géej gi lay jaar. ci géej gi la naan biw. moom Macky mën na loolu ma koy defar. mbay defal mbay wàññi ci biir ci peggu géej gi. moo gën biir géej kan moo ci. yaa ko wax yow bopp yaa ko wax de. yow nag journaliste bu yi gën ko wax yow sa jëm bopp wax. mbay jee ci géej gi maa waroon ci peggu géej gi nga naan ma ci. numéro 2 mbay jee kii wax ji jeex na. mbay jee fay numéro 2 mbay jee fay numéro 2 yaa ko wax ah mais loolu. man waxuma waxuma Mbaye Gueye Faye numéro 2. dama ne Macky mooy Youssou man maay Mbaye Gueye. loolu du Mbaye Gueye numéro 2. Mbaye Gueye sax booy gel na jeex. <laughs> mu ne kay mësut a gis lii boo xam ne léegi daal ay mba ay mbaaxu Macky rek lay wax moom mbay Ndiaye moo remplacé ki nga xam ne rek moom moo di Farba Ngom ma ciy nuyu Arona Ndiaye As Ndiaye depuis hôpital bare bare di nuyu ki nga xam ne rek moo di famille Grital Mbaye gépp ñu ngi leen di nuyu daan leen wax gri dogo daw Diagne Mbaye maa jigéen mais nga ca Yacine Fall man foog góor a ma ci yéen benn la mu di Mbaye gi nuyu naa leen képp ku ñëwoon ci tour bi rek nuyu naa leen yéen tamit mbaay daan yi nuyu naa leen lu bare bare euh, kon mu jógee ci ki nga xam ne rek moom moo di Mbaye Ndiaye di xam ne moom moo di Moustapha Cissé Lo Moustapha bi ma sante sama wasila Seydina Ablaye Thiaw ah, di nuyu yépp di la déglu nga pour ma gannaaw li nga xam ne rek waa laay laayeen nga daal. du kenn ko nuyu laay Seydina laay Issa voilà euh, ñu ngi leen di de passage. laay Maxtaar boo nee teema Moustapha deema wax Moustapha Cissé laay voilà. Euh, di ci nuyuwaale Ramatoulaye Sall ñu ngi koy sargal lu bare bari laay Maxtaar laay Seydina laay Issa yow waa Touba googu nga naan doo fa yóbbooti kenn Makka ñun benn ñoom faalewul la xamuñu ba xam yaa ngi existé. xam ñu sax ba xam jóge nga Touba bay ñëw fii nga xam ne rek moom moo di Padois kon nga xam ñoom teguñu la fenn kon bul waxati ni doo yóbbati kenn ku dëkk Touba fi nga xam ne rek moom moo di Màkka ñoom xooluñu la intéressé woo leen dama wax ni incha waay mën a nekk nañ préparer rang bi damay joxe ay billet Màkka ñoo koy jox waa Cambérène Yoff Layeen ak waa Malika yëmbal parce que ñoom laay yóbbu mag waa Touba nag ku ma ci yaakaar doo raay kaaba ñoom dem naa du ñu gi doon wax moo yaay ji yàlla na kaaba gi du ñu raay kaaba gi ren parce que Serigne Ablaye Thiaw <laughs> nga tàmmoon di ko wax. man ne barke Serigne Ablaye Thiaw man li wax du ay ca muy du ñu raay kaaba gi. kaay na laaj ci dut maye tiit ñoom xooluñu la waaye ma ne xool ak bañ ma ne dañ daan dem màkk te gisuñu la waaye labbayka laahumma la sharika laka labbayka innal hamda wa nihmata laka wal mulk la sharika lak du ñu ko wax ren Cambérène tu màkka yëmbal màkka yoof màkka tuuba ah neel yow. neel yaa leen di. duñu dem ndax ñoom duñu dem de. ak Seydina Limamou. du ngeen de. ah ndax nag foo teg ni duñu dem. foo ñuy jaar ba de. xanaa maay joxe bii maay distribué te du ma ma ne. Ah. maa yor racole bi te damay roose Cambérène nay tooy. du ñu def duñu tooy rek. bu du tooy. Cambérène laay tooyal ba mu. <laughs> man de musuma si yor racole bi te mooy tooyal. man de mu waaye laay tooy xam nga li gën a bon xam gën a bon ci àdduna mooy di wax loo xam ni yow wóor na li ngay wax ni lii dara mooy loolu daal soxna si sëñ bi maa yore sama bi di maye maye Seydina li ma li ma wax leer na dëgg naa ko bu ma ko <laughs> kon baax na du ñu raay kaaba dinañ jaar ci yow ma ne ñooñu dañuy ñu raay ka li ñu doon wax moo yaay ji yàlla nga raay ka <laughs> ba ma ne <laughs> foo dëkk Cambérène yow yaay ji yow da ngay raay kaaba ga foo dëkk Touba moo yaay ji xam nga doo raay kaaba ga. eh waay sàmm fi nga ko teg leer na ne bu yaay kon naka ñu daal di ubbi rek. yow ndax man du ma ci sori. raay kaaba gi ci sori. di dëkk Touba du nu raay kaaba loolu du ma ci sori bu fekk am na ku nekk ci ligne bi 88 628 99 99 114 yàlla. asalaamaaleykum soxna Souka maa ngi lay nuyu. waay maa ngi lay fay. bi mu dëgg Moustapha Cissé naa la. fay naa la. waaw ñun de dañu laa gisul ci pont de l'Emergence. lan moo tax ñëwoo yow daal léegi daal ñu ci bari dootuñu la ci seen xanaa dañ laa dégradé. <laughs> Eh, yow da nelaw yow déggoo bi ñuy jël nguur gi la ñu wax. gouvernement vertueux sobre si sobreté laa nekk dootuma fi nekkati di yëngal parce que ñaari yoon laa fi yëngal. affaire yi demee neneen ñu naan si selon ni ma yor ba damay bàyyeeg le président Macky Sall mu am bës tuuti. Ah, parce que bu ma demee dañ ñaan si sello si sello ah. journal yi bind si sello si sello léegi bi ma bàyyee ci ngay dégg. Mbaye Ndiaye président ak Mbaye Ndiaye ah. bu si sello ñëwee. day jël bës. kon man kon la sa kon léegi kon li man ci say wax. damay damay ni que kon Macky Sall ak mbay Ndiaye amuñu bës. yaay bës bi bu ma ñëwee. ne yow amoo ñoom amuñu bës. dal nga bëgg a wax bu ma ñëwee. du am buzz. waaye maa yore buzz bi loolu nag nañ nangul ma ko nangul ma ko si Cissé bu ñëwee day jël xorom si Macky Sall taxawul ñëw si ses bi mu ñëwee si ses wax na fa lu am solo ban lañ ci jàpp sama battre ba ma ñëw di battre ñëpp naan si selo si selo mm. si selo ñu fàtte ñu fàtte li Macky wax te lu am mm. solo dëgg looloo tax dew ma kon sa man daal bu ñu jël affaire yi di ko def neneen ak neneen man teew ma pour le président am bës loolu la barki Seydina Limaamu Laay léegi kon danaa Moustapha si Moustapha Laay Seydina Laay Issa Laay bës jaay jëf waay merci beaucoup merci jërëjëf maa ngi nuyu waat wax Cambérène fàttuwaat nañ ma fa fekk rang ba rangu biye màkk rangu biye màkk ma wax mbalee bawal ew eh, way sa mbëllee bawal ba xam yow yaa ko moom banaa waa eh, ba ah, kon baax na eh, nee na mbëllee ba nee na mbëllee waa bawal nee na waa paduwaa nan ñëw fële nga xam ne rek moo carang ba jërëjëf ñu daal di àndoon nag ñi nga xam ne rek moo di waa service commercial àndoon nag suñu sponsor bi mu di joni joni ak application bu rëy bi lee mu di vite fait tëddee nag li nga xam ne rek moom moo di njaaxaanaay ci digganteeg Modou Lo ak Gris Bordeaux. oui Souga non c'est vraiment euh, <clears throat> vite fait. Eh euh, li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci réew mi. Mm-hmm. boo seetee ñoom seen ñoom seen dara ndaw la ah. seen dara ndawul boo seetee émission yu mag yi. mu di Nepad musical ndax moo xew. mais <laughs> mais quand même. ah bu baax mais quand même mais mais Souga actuellement nee naa la on est le seul leader dans l'arène waa xeexuñoo kenn nag. Eh, ñoo leen ne seen daal la rek. waay waay ne pas ko yor waay. ku caa sàqi na. ne pas ne pas émergent ca kaw. l' émergence vraiment suga vraiment. Euh. ku caa li def ni sàqi la wala. sàqi. aywa ñun. fàtte nga taayee nga ma fi waxoon ni ma. Eh. déedéet taayee nga ma fi waxoon ni ma. Eh, wax naa ko ni ko yow bu ñëwee. nee naa <laughs> ma wax ci waxu Kouthia. boo waxee Kouthia rek sukaa place am lay calculer. Eh, ko pour. mu yàlla <laughs> bi ma waxee ba léegi sukaa dem na ci sëriñ sax pour. ñaanal Kouthia pour mu dellu place am ay saa bàyyi ngay wax. <laughs> parce que boobu moom parce que ku caa ku caa bu dee taay da ngay doxantu rek di dem di. saa waa invité nañ la. ku caa ñëwal si ñëwal liggéey ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñu jël la. ñu remplacer ma jël ko bu ko defee. ñu dàq sukaar vraiment. ah son droit amatul njariñ ci kër. dëgg la dëgg la ñu def benn diwo boo xamante ni bii. Sénégal gi ñu koy coow vraiment ah loolu moom la àddina bi yëpp di xaar. tubarkaale loolu yàlla ko yàlla def waaw te ndax. waa jërëjëf euh, di nuyu ki euh, ah. di nuyu sama papa El Hadj Mamoun Mbaye di nuyu euh, sama papa Mamoun Mbaye pour commencer su bala ma wax daal Yékini. waaw est-ce que man damay dox ñu naan non Yékini màgget la ma ne mais Yékini bu ko fi kenn waxati màgget. da ngeen a nduroo. Yékini man ak moom ñoo maase. ba pare a nduroo. te ñoo bokk même jour bu ñu judd. même weer lii diit kay. billaay. Ah, bu dee Yékini defut jugement man de defuma jugement. bu dee Yékini defut jugement billaay ñoo bokk même jour. bu ngeen juddoo même benn même weer même yow yéen a bokkal anniversaire. ñoo bokk lépp. Ah! at bi ñu joxe ci télé bi. 26. 74. et 74 yow paa bi 26 février. yow yow paa bi mën nga keneen maas kon yow ko niki ni paara. ngeen ay seex ngeen. aywa dem ba pare ay seex ngeen yow da ngeen a nduroo. aywa yëkkati na Soukaayoo. Yékini Junior yéen a maafe. Soukaayoo Soukaataay. daabu nuyu na la lu bëree bëri di nuyu ñi di nuyu Pape Modou ah. Eh, kon ñu daal di ànd ak Yékini ci li nga xam ne rek moo di seen ne musicale Yékini da <laughs> nga def Yékini borom defet. Eh, maa ngi sant yàlla encore une fois. maa ngi leen di nuyu aussi di nuyu toute la population sénégalaise mënuma fàtte waa Joal mhm. parce que ku xam Yaxya xamee ko Joal Fadiouth ak mhm. Basout mhm, donc maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ñuy seetaan di la déglu nag <laughs> pour nga laaj ma tontu la parce que lu mun am rek mooy ñu wax li fi ne. dëgg la. jërëjëf déglu naa la euh, waaye Yékini euh, gone baasul gi. Euh, gannaaw bi la Lac de Guiers nan nga dundee défaite bi ak li nga fi indi yëpp man yaakaar nit nit ñi yaakaar ni sax malaak nga fi indi mooy borom lu weex loolu gannaaw lu ba la daanee nag ak yi ngiy def yëpp. waaw sa défaite maa ngi rafet rafetlu bu baax li nga xam ni laaj nga mhm. mu jëm. ci sa defet bi ci sama defet bi nga xam ni am naa ko sama digganteeg Lac de Guiers. Mhm. loolu. Mhm. dañ ci mun a jàng. xam ni Lac de daanul Yaxya. ban Yaxya daan. ndaxte nag. ki mu daan nii démb ci lamb ji kooku du man. ko kan la. ñu bari ñu ngi yaakaar ni Lac Yaxya la daan. kan la daan waaye. ku mu daan. ki mu daan du yax-yax. kan la daan kon. ndaxte ban yëkki ni démb sax. Mhm. bëriwu ma. kan moo bëri. ki ngeen gisoon ci lamb ji. <laughs> mu mel ni ku yor mandarga yax ya bu yaboo ñu jàpp ni du yax-yax. waa kan la. moo tax ma ne ki daan daanul ki daanu yëpp daanuwul. loolu mooy la. ndaxte ki daan. moom dafa jàpp ni. <laughs> yax yàlla daan. yow nag ñoo yab ñu. te nee naa la bëriwuma woon démb. yow foo nekkoon démb. maa ngi woon Joal ak Faal bi. yow loolu moom doy na waar de. kon ki daan daanul kon ki daanu daanuwul. lamb ji pour mu mun a leer. nañ leen ko tëggaat. tëggaat loolu yomb de. ñu xoolaat bés boo xam ni du taw. waaye di lamb muy wicci wiccal te man samay rawaan nanguwul wicci wiccal ah. loolu moo tax ma ne kii daan daanu ki daanu daanuwul ah, ki daan daanu daanu ku daanu loolu daal moom ah. laa ci mën a wax dëgg la kon daal donc kon daal ki doon bëri démb du yow yaa ngi woon baax nañu delloo waat xel yi taxam ni ki daan daan daanuwul yax ya yàlla yaxya daanoogul li ma waxoon ba tey jóguma ci sa jël bu rëy boobu ba takk suuf sa sa sa om sa kii bi ni takk suuf nga ne du yow soxna si yow de ngaa xamul mystique ah mystique loolu moo tax ngay wax waaye kii daan ah daanut waaw ki daanu daanuwul dëgg la kon boobu yaa ngi woon baasul loolu moom kenn mësu koo gis da nga teg foofu sa baaraam 88 628 99 99 114 yàlla allo allo. asalaamaaleykum soxna Souka nuyu naa la. waay fay naa la waay sëñ bi <laughs> yëg ni maa ngi lay nuyu waaye. <laughs> maa ngi lay fay. xam ne moom laa mhm. na bon nga nii affaire yooyu quoi. Mhm. waaw léegi yow comme que daanu nga léegi luy sa xalaat quoi luy sa xalaat ndax da da nga waxoon ne deux combats yi saf sàpp nga bëgg quoi est-ce que. da ngay bàyyi eh, beneen bi yaa ngi koy xaar quoi bu saf bi wala déet. li nga xam ni moom laa bëgg. muy loo bëgg yow. maa waxoon ni. Mhm. te maa bëgg ñaari combat de soq. dëgg la yoo xam ni. Mhm. ñu saf lay doon. dëgg la loolu yaakaar naa ni ñëpp xamoon nañ ko. Mhm. wax naa ko ci télévision bi. waaye nag. loolu nag. ginnaaw dogal na. ñu jàpp ni Yaxya daanu na. te sax man xam naa ni daanuwuma. léegi nag damay bugg. léegi damay bëgg. loo bëgg. ginnaaw benn combat bi nga xam ni ñaari combat de soog. bii nga xam ni romb na. bii nga xam ni bëree woo ko. ku yabu jàpp ni dee combat de soog la kon nañ ma may benn bu ma raxasoo rek génnee ko lamb ji. Euh, ñu jox ma Pape Mor Lo. Pape Mor way laa bàcc seeraas. baax na wala yaawu jaar. wa ilaa yaawu jaal bul jaxase te ma bugg nga teg ma bu may wax. néewal maa ngi lay déglu. nañ ma jox Pape Mor Lo. xale la de. wala ñu jox ma bàcc seeraas. ñooñu xamuñu dara. wala Saalum Saalum wala Sita. Sita men. ñooñu ma mun leen raxasoo génn lamb ci ndaxte ñu ngi naan Yaxya na bay. Eh. waaye balaa may bay damaa bëggoon ñu tanal ma ñooñu. yéegi ne Pape Mor sax mu amul problème. waaw. Euh, ki nga fi waxaat tamit ñooñu amuñu xoole mais Siteu xale la de. te yow mag xool naa tànk yi xool sama tànk yi. bu ma ëppale it du loolu. kon Siteu ay tànkam ndaxte tànkam yi. Hmm. sew na sama tànk sew na. te boo xoolee li tax Lac de daan Yékini de. Hmm. Yékini de man moom la daan dégg. <laughs> tànk yëkk Yaxya de yi dafa sew. looloo tax Lac de daan kon yow dëgg da ngaa bëgg a wax ne Yékini démb daa nekkoo ci làmb yi li am mooy waaw kii daan waaw daanu kii daanu daanuwul kon yow daanuwoo fenn jeex na point final foogoo noom a xooj wala yin géej fa yax ya jóopin fa yax ya jóopin bayiwin lambin a lambin mhm. wa magatin gacayin boo màggatee da ngay am gàcca lambin lamb boo maggatin gàcca yin boo màggatee dangay ngay da ngay waggee jawayin jikinin jigaatikin yax ya joobin ah saa bu nee na da ngay def nànk may ko da def nànk parce que li ngay am na ñoo xam dégguñu ko bala gay fa daanin yax ya léegi bala gay daan na fa daanin yax yan géej wayin jigéen ni yax kon ça veut dire loolu day firndeel ni géej way du sa fief dootuma fa dugg léegi Euh, ma labal waa Pikine. uy ma Yékini ma jox. Yékini déglu ma waay. a Sène. Eumeu Sène da lay daan. astafurlaa tànk ya dafa dëj. dëgg. <laughs> xoolal leen ma Ama Baldé. Ama Baldé dafa mën a bëre. laa dina ba am na doole. tubarkàlla waaw. li am. te ñu laa jox mooy nañ ma jox bàcc séeraas. wala ñu joxaat la Balla Gaye te ñu <laughs> <laughs> mais balaa ñuy dem ci waal yi paa yi doon reporté démb làmb ji muy paa Abdou Aziz mbay ak euh, beneen paa bi. ngir yàlla bu ñuy reporté te bu ëllëgee. Uh-huh. nañuy wax ci làmb te bañ a sàmbay mbayaan mais di reporté làmb mbër yi bëri mbër yi ndaw yi kenn xamu ci kenn parce que ñi ngi lijjanti xaalis bu ñu war a mën a am. Ah. naan diw diw diw diw diw xam nga tubaab buy seet télé te uh-huh. comprendre wala ku déggut olof di seetaan day uh-huh. defe ne euh, Aaron Nadia day defe ne mooy mbër mi ñu mujjee daan Arona Dia mi ngi defee ne loolu promotion la mais paa yi ñu ngi naan waaw Arona Dia bañ daan mbër ma ñu naan waaw Arona Dia benn ñag dane ma bon c' est Arona Dia on a bâti Arona ja ma ne ko non non c' est pas Arona ja c' est pour les sambay mbayaan kat dañoo fàtte mbër yi di sambay mbayaan ba naan Arona ja donc loolu c' est grave bu ngeen di wax ci làmb wax leen ci làmb Bécaye mbay même lu mën a sàmm mbay sàmm mais bu ñëwee ci làmb dana ne nañ yegg ci làmb ji wax loolu Bekaay Mbaye loolu félicitation Bekaay Mbaye ci ah, loolu ah bravo ma faali ku ma ndaama tax ba balaa professionnel nga par ah, ah. rapport ak ñaari paa yi doon reporté démb làmb ji ñooñu Youssou Ndour bu dee mi ngi may dégg na leen dàq ah je saa Ndiogou ñu dem ci Wally sek ak promoteur ya procès Wally sek la ca procès ba voilà procès Wally Seck justice ñu seetaan loolu te joxante dig daje suka suba suba. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne teg loxo di nuyu ko def ko naqari <laughs> yow yoo gisagoo dara la xoñoñal di la xoñoñal di la xoñoñal di mës bon l'affaire de Wally Seck et le promoteur de Bercy est-ce que yéen ñëpp a ngi fi ok euh, merci madame le juge defe dossier Wally Ballago Seck ak promoteur Bercy yi lëmbee réew mi euh, monsieur le promoteur de Bercy noo tudd yëkkatil sa loxo waatal ni li ngay wax dëgg la te doo ci dugal benn tappale merci monsieur le procureur man la Tafa Dabas promoteur de Bercy avec Wally maa ngi yëkkati sama loxo di wax ne lépp lu ma fi wax day nekk dëgg euh, monsieur le promoteur lan moo la jotale mhm. ak Wally voilà xam nga affaire bi c'est très simple au début ñun booy bi dañ ko gis mu xaw a am talent bu ndaw fii commencé fees. su tax nga ko booy bi neen daanaan bi. non c' est que kii c' est un gosse ñun fu ñuy waxee. parce que allez-y bi ñu ñëwee. Mhm. Euh, ñu ne dañ koy jàppale lancé ko defal ko ce qu'on appelle une promotion. à travers ak sama staff ñu yóbbu ko Bercy effectivement bi ñu demee Bercy accord yu ñu waxoon ak moom. Mhm. moom booy bi il n'a pas respecté ses accords. yan accords ses engagements bon moom benn bi ñu demee dañ ko waxoon ne bu deme par exemple. moom dafa am ay nitam yu fa nekk bu defee sa mbay mbayaan day jël 60 pour cent ñun dañuy jël 40 pour cent moom accord boobu dafa ko beneen accord mooy ñun aussi dañ fa amoon tamit suñu nit yu fa nekk effectivement dañoo waxoon ne bu leen sa mbay mbayaan ni ñooñu ñun dañuy jël maanaam ay nitu waali ak da fay am 40 pour cent waaye yéen seen nit waali moo fay am 40 pour cent noonu la demee monsieur le procureur mm-hmm. mais booy bi accord boobu da ko jël te ko ci suuf ak lan mooy problème mu demaat waxatuñ loolu ñu baal ko loolu di waxaat beneen soulever problème moom mu ñëw mu ne dafay def raxas doog Ousmane te ñun amul suñu accord. raxas bi àndu leen ci woon. non ci ànd ba tey fii ma taxaw nii. merci monsieur le prompteur. <coughs> circulez. <coughs> un fan circulez bon. Mm-hmm. nom de Marème. yëkkatil sa loxo. jëlal sa micro yëkkati sa loxo waat ni li ngay wax dëgg la. waaw maa ngi waat ne lépp lu ma fi mënti wax dëgg lay doon. doo wax ay caaxaan. déedéet. yow dafa mel ni bokkoon nga ci ñi nga xam ni demoon nañ ci raxas bi. Mhm. demoon nga ci raxas bi. demoon naa waaw. raxas bi neex na wala néew. neexoon na torop kii du def luy naqari. Mm-hmm. est-ce que feesoon na comme Bercy nu mu feesee. torop dafa fees ba ñu dañoo teg écran géant ci biti. Mm. pour nit mën a seetaan. Mm. Mm. ok. kon euh, daal raxas bi moom bu amutoon. du doon lu ñuy gënal. du doon parce am na ñoo xamante ne amuñu mooy dugg biir Bercy. Mm-hmm. kon bu def ba mu defee raxas bi paas bi gën a moins cher nit ñi dañuy ñëw dafa feesoon dell. Hmm. neexoon na torop. accord kon dafa mel ni raxas bi. Hmm. waaw la set na. set na set na wecc donc Wally Ballago Seck à la barre. Mhm. Marème fans club merci. Wally Ballago Seck. yëkkatil sa loxo ndeyjoor waat ni li ngay waaj a wax dëgg la. je le jure fi wax dëgg lay doon. ñii nee nañ da ngeen a àndoon ci seeni nit mhm. ñoom amoon nga fa quarante pour cent mu ne ba ñu àndee yow ci seeni nit ñoom amoon nañ fa quarante pour cent waaye yow ci sa jëmmi bopp joxoo leen dara mhm. tey raxasloo wuñ la mbiru Bercy looy wax ci loolu merci monsieur le juge yaakaar naa ne Tafa sama grand la te sama mbokku Baye Fall la yaakaar naa lépp lu muy wax war na koo leer. mi ngi naan booy bi ndaanaan bu ndaw la yaakaar naa ne ni ma toll nii noonu laa demee Bercy te bi yëpp ma fa. toj naa Bercy monsieur le juge. waaw loolu moom kenn wax. Mayasin may sa bige may sa bige maar xale faramaar. Eh, ça va ci ay Mayasin nag ay may sa bige may yoon ci loolu. waxal ci question bi. liñ la bëgg liñ lay laaj silence la fan sa euh, ñoom ku leen xool xam ne amuñu ay géer. Hmm. déedéet. amuñu géer amuñu géer. ça ndax man diggante Paris Marseille Bordeaux Toulouse Nice fuñ dem rek samay géer luñ ma jox may naa leen ci. Hmm. mais moom nee na da ko waroon coom da nga leen waroon compal te compaloo leen. mais waali xaalis boobu yëpp fan nga ko dugal. laaj ko ba xam compalu ma leen lépp luñ ma jox rek bokk naa ko ak ñoom. Mhm. au contraire ñoom ñoo ma desal xaalis. waali lu ah tax nga raxas. monsieur le juge raxas boobu waa Paris ñoo ko doon laaj. mënu woon a ñàkk. mu woon a ñàkk parce que am na ñoo xam ne mënuñu woon dugg Bercy. Hmm. ndax Bercy dafa feesoon dell. moo tax ma ne xaaral ma def raxas bi pour ñooñu looloo taxoon ma def ko. Hmm. voilà madame le juge. Mm -hmm. l' affaire Wally Ballago mhm. a beaucoup de points sombres. Mm -hmm. et nii nii nii nii. affaire la. moo xam ni. Mhm. mbir mu doy waar la donc Wally Seck mi. Mhm. du ñu mën a def lu dul ñu daan koo. daan waaw. jéem koo xool nañ koy kiiwee loo ma bëggal. naaru góoru jamaa la la bëggal. jox la ko digg njolloor. li neex ci teraanga gi mooy monsieur le ah. jam ñaajo laa lay xaar. Eh. oui yo mais madame le juge nag ñoom ñaa jëla li xaar ah. ma dem bi oh, na gël ah. dama la la bëggal nga ne waaw waaw joola ko dégg njoola waaw waaw eh. li ma ne ci teraange gi mooy ma dem bi ñoom ah. ñaa jëla li xaar yéen a mën a tooñ da ngeen a mën a tooñ tooñ nañ ma dooral dooral tooñkat yu mag yi Georges Ka wax na ci Laye Dinaar Mourina yëkkati na ay kaddu nee scandale <laughs> waaye Samba ndaxte dossier judiciaire ne xuus protocole yi ne ak yeneen ak yeneen yoo xam ne na ci dëkk bi Macky Sall di falaate fal gu mu tegul fenn waaye moom waaye Mourina bii état scandale la waaye yéen a lekkaay bi nga xam bu leen ko yee bu leen ko yee eh ko yee bu de. te gaynde buy nelaw bu ko kenn yee di karuk président Macky Sall moo xam ne lu ni mel yeneen laxas laa kat ci fan Ousmane Tanor Dieng ak Khalifa Sall njawon fay de seen xam min de ndaxte Ousmane Tanor Dieng daal bugal yomba rek ndaxte kat waa parti socialiste gëraala gi léegi ñëppa ñi ngi ànd ak Khalifa Sall loolu moo naxari koo xam ne mooy Ousmane Tanor Dieng fi mu toll nii moom mi bëgg a jaay parti socialiste yëngal ko loolu bëgg na si li nga xam ne moo tax Khalifa Sall daa dee jël flamme booba yëkkati loxoom sa kaw wax ne day jël parti socialiste foqat ci ko waaw waaw <laughs> kii moo am fula ak fayda yeneen yeneen gars yi Mimi Ndeye lu nga xam ne moom la ñu naan hmm, lii nag mooy ngemb na Yékini nag jox nañ ko nag la nga xam ne moom la ñuy wax passeport de retraite maanaam diplôme bi nga xam ne bii moo war a tax mu dem tëddi noppal yaram mam ndaxte Yékini mii boo xoolee tànk ya jeex na tànk ya dara ne watu fa tànkam ya sew na lool moo tax Lac de Guiers ba mu ne ci ciix da koo puus mu nga lañ jëral <coughs> timi sama si no kas dikk na de gaay no kas ñun nokkas yoraaju ci Demba Ba jaaxaat na si lalu hôpitalam tànkam wane mbégte ak kontaan ci askanu Sénégal soutenir biñ ko soutenir macha allah Demba Ba yàlla nga wér te jóg wasalaam.